qalbi lahu fi itaab al-jismi takraaru li'annahu lil-hudaa wan-nuuri jarraaru qalbi lahu fi itaab al-jismi takraaru li'annahu lil-hudaa wan-nuuri jarraaru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 bokki taalibe yi bokki jullit yi ginnaaw bu nu jiitalee sant suñ boroom subhaanahu wa taala julli ci bu tedd ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallama dellu santa seexnal xadim di ñaan suñ boroom kayal eh, di ñaanal bu baax seex muhammadul muntaqa suñ boroom yàggal ko fi lool ba li mu yéenee liggéeyal lislaam yéene ko liggéeyal njabootug lislaam mu àggale ko fu kaw njortam ci barke xadim noo ngi siyaar bokk bu baax a baax di leen ndokkeel ci weer wu màgg wi nga xam ne ci lañ nekk doon weer wu bari ay ngëneel lool di weeru rajab doon weer wi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa woon dem ca boroomam mu jox ko yóbbul bu mag boobu te mooy julli di ñaan suñu boroom subhanahu wa taala loo xam ne suñu boom digal na ko ab jaam ci mu di ko taxawee ci julli suñu boom defal na ko lépp loo xam ne su boom diggee na ci ci julli suñu boom defal na ko boolem lépp ngëneel yu nekk ci julli suñu boom subhanahu wa taala defal na ko waaye doon weer wi nga xam ne nituk yàlla ku màgg kookii di Cheikh Mouhamadul Fadel Mbacké ci la gane woon jamono muy guddeeg ñaar fukkeel ga ak juróom ñaar doon koo xam ne nituk yàlla la ku mag koo xam ne ku am cër la ci suñu borom subhanahu wa taala di ñaan moom tam suñu borom na ko yokk ko ay leeram te taas na ci barkeem ci barkeem alquran karim di ndokkeel jullit ñi ñépp nag ci weer wu màgg wi waaye di leen ci eh, julli gi nga xam ne moom la ci suñu borom subhanahu wa moom na moom ko defal ñun jullit ñi waaye tamit di ci ndokkeel mboolem taalibe yi waaye mboolem jullit ñi di nitu ko ku màgg nga xam ne ci la feeñu nekk nag ci njob waxtal ci catal weer wi nga xam ne ñaar yooyu yëpp ñu ngi daje woon ci catul weeru nga xam mooy weeru rajab di ci ndokkeel jullit ñi waaye di ci ndokkeel taalibe yëpp ba ñu kenn taalibe yëpp ak jullit ñëpp rek ñaan suñu boon tafal na tawfiq zahiran wa kon mbokk yi ñu dikkaat ci sunu jataayu jigéen ñi sunu so zaadi nisaa il muslimaati li nasihati al muminina wal muminaati doon jataay boo xam ne jataay bu ñuy waxtaan ak sunu bokki jigéen yi la waaye jataay bu ñuy waxtaan ak sunu bokki euh, góor ñi doon jataay boo xam ne jataay fàttalente la waaye jataay laayenti biir la comme ni nga xam ne noonu la ko alquranul karim waxe ak ni nga xam ne noonu la ko xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxe ñu ci faral di indi ay tomboon rek di ci waxtaan di ci fàttalente rawat na suñu bokki soxna yi jataay yi nga xam ne moo paase noo ngi woon noo ngi war a génn ci téereb Sëriñ Tuubaa bi tudd wasiyatu soxna Penda Diop mu am ay ndénkaan yu ama am solo yoo xam ne daf ko doon dénk soxna Penda Diop waaye nag yem rek ci soxna Penda Diop mboolem taalibe mu ko déglu te topp ko rek ma nga cee am ak jariñu ci àddina ak àllaxira nangi nag ba ak séegéen ci fi Sëriñ Tuubaa di dénk soxna Penda Jóob duumi alal xumuuli wa tasatturi wal tuxfidi sawtaki dëhran tushkari te Sëriñ Tuubaa doon dénk soxna Penda Jóob ne maa ngi lay dénk ci nga ngay nëbbutu ngay géem waaye ngay sutural sa bopp waaye ngay suufal sa kàddu mboolem diirub jamono jëpp ñu waxoon tamit nag ci lu lu lu lu bari bari ci wàllu jigéen wàllu li ko war ci nëbbutu ak di giim ak di suturaal boppam ak di eh, suufeel kàddoom mel ni loolu liñ ci mën a wax bari na lool war na suñu jamono ji nga xam ne ci la nekk ci wàllu suñu bokki soxna yi ci ni nga xam ne noonu lañ koy defee eh, tabarruj ak li ci aju ak li ci alquran wax ak li ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ñu indi woon nañ ci lu bari ci ay xeet yu bari bari yoo xam ne jigéen ñi ñu ngi koy def ci jamono jii eh, te lenn warlu ko dut ak ñàkk kersa te kersa moom mooy bokkum diine saay boo ñàkkee kersa rek amoo diine diine kersa mooy diine saay ñàkkee kersa rek amoo diine te jamono jiñ toll kenn ku ne gis na ne ñàkk kersa gi bari na lool rawat na ci soxna yi waaye tam eh, bëgg feeñ bëgg ginni sa taar ci sa waxin ak say doxin ak say jëfin lépp rek bari na lool rawat na ci jigéen ñi te jigéen ñi waxoon ko ne ko nay toog ci këram su fekkee amul soxla bu farata woo bu mu war a doxi nay toog ci këram waaye itam nay muur aw yaramam nay sutural boppam Sëriñ Tuubaa waxoon na soxna Penda Jóob walan tanaali eh, eh, eh, diina yaa Saynabu taxamuri walan tanaali diina yaa Saynabu xata tasturi jismika bi taxamuri yow Saynabu na nga xam ne doo am diine mukk lu dul da ngay sutural saw yaram di muur say cër di sàmmonte ak ni nga xam ne noonu la ko lislaam digalee loolu lépp ñëwoon nañ ci ba euh, waxoon nañ ci lu bare bari xañ na xañ na xañ na jeexut sax mën naam xañ na mën ñu jël si wat ndax moom li ci mën a wax bari na lool du jeex ni nga xamee ne noonu la jigéen ñi di defee tabarruj di génn ci génn wu lislaam gërëmut di solo solo yin wu lislaam gërëmut di waxee wu lislaam gërëmut ak la nga xam ne moo ci aju lépp bari na bari ko xam ne loo ci wax rek am lu des loo am lu des ñëwoon nañ ba ci euh, wàllu tuux fi di sawtaki mooy de del suufeel sa kàddu ndax kàddu jigéen daf ko war di suufeel waxoon nañu ba indi ci misaal ci alquranul karim mooy li gën ci lu doomu aadama di génn ci aw làmmiñam te alku alquran juju dana wax ni jigéen bu koy jàng sax ci biir julli na suufeel kàddoom su fekkee dafa nekk ci mbooloo na suufeel kàddoom na wàcce kàddoom nga xam ne eh, yow góor tey boo doon julli timis nga nekk ci mbooloo di jàng di jàng di eh, julli timis boo suufeele sa kàddu boo wàcce sa kàddu kon dañ lay wax ne la da ngaa wàññi julli ga da ngay sujjuut xabla salaam jigéen nag buy julli timis bu nekkee ci mbooloo ñu wax ko ne ko na nga suufeel sa kàddu na nga suufeel sa kàddu la nga xam ne dafa nekk dafa nekk sunna bu fedd li nga xam ne boo ko bàyyee day war a sujjuut jigéen nag bañ feeñal kàddoom bañ a yëkkati kàddoom tax ñu ne ko loolu nga xam ne sunna la bu feddliku ci góor nga xam ne day war a sujjuut yow loolu nekkut yow sunna gis na loolu lu jara bàyyi xel la eh, waxoon nañ ba indi ci alquran karim ni nga xamee ne laajoon nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàng alquran ci ak jàng ci biir julli lan moo ci gën mu ne jàng alquran ci biir julli moo gën jàng ko ci biir julli te jàng alquran moo gën leneen leneen leneen lu waay di jàng maanaam lépp luy génn ci aw làmmiñ rek alquran karim mooy li ci gën mooy li ci gën a tedd ki nga xam ne daf koy jàng nag ñu wax ko ne boo koy jàng na nga suufeel sa kàddu kooku kaddum lu jar di wàcc la lu jar di suufe la waxoon nañ ba indi ba ci noddu noddu dañ cee sopp ki noddu kaddu mën a yëkkati lool waaye neex lool gis na ñaar yooyu yëpp daje na ci jigéen waaye nag dafa xaraam ci jigéen ndax dañuy bañ kàdduum yëkkatiku kon loolu lépp lu jar di bàyyi xel la ci sunu bokki soxna yi dal wal tuxfi di sawtaki dëhran tushkari waaye bokkoon na ci li nga xam ne Sëriñ Tuubaa dénkoon na ko soxna Penda Jóob waaye yëmul ci soxna Penda Jóob mboolem soxna yi ci mboolem soxna yi mboolem jullit ñi laa tansur yi maa dumti xayatan ila xayri lasi taxliluhu xaddin jala bokk na ci li mu ko dénkan yow soxna Penda Jóob maa ngi lay dénk bul xeppi sa bët xool ci loo xam ne dagan na ci nga xool ko loo xam ne amul la itte ci nga xool ko amul wenn yiw wam lay jural ci nga xool ko nana bul ko xool atan suri ma dumti xayatan ila xayri lësi taxliluhu xaddin jalaat lépp loo xam ne dagan na ci nga xool ko mën nga koo xool waaye lépp loo xam ne amul la itte ci nga xool ko wala sax dana ko tere nga xool ko nana bul ko xool ndax day dugg ci li alquran waxoon ne wa xul naat muminaati yaqdudna min absirihinna waxal jullit ñu jigéen ñi ñooy damm seenab gis kon loolu day méngoo li nga xam ne Sëriñ Tuubaa wax na ko soxna Penda Jóob fi lépp loo xam ne itteelu la ci nga xool ko bul ko xool te yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne bokk na ci rafetug lislaamu cam si mooy lépp loo xam ne amul la njariñ babayku min xusni islamil mar'i tarkuhu ma la yaani lépp lu la itteelut lépp njariñ nga bàyyi ko loolu daf say bokk waaye wàccani bil xiibata wa takabbura wa asbiti sukuuta wa tasabbura ba léegi bokk na ci lim koy tere mooy wàccani bil xiiba lan mooy xiiba mooy al mooy dafa xaraam jullit mooy jëw mbokkum jullitam kom ni nga xam ne noonu la ko alquran karim waxe alquran daa wax ca suratul xujuraat wala yaxtab baadukum baadan an yuxibbu axadukum an yakula laxma aqiihi mayitan fa karihtumuhu alquran daa wax ne bu kenn ci yéen jëw sa moroom bu kenn ci yéen jëwu kenn ci yéen daa wax ne ndax kenn ci yéen bëgg naa lekk yàpp moroomam loolu tontu la mooy déedéet kenn ci ñun bëggunu ko fakarihtumoohu kon jëw kenn du jëw sa mbokkum jullit comme ne ko Sëriñ ba waxe wa xiibatul muslim fi xawlil xabiir aqbahu min aklika jifatal xamiir jëw sa mbokkum jullit ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne na moo gën a bon lekk mit bu mbaam nga gis ni jiw lu lu lu réeréy la lu bon a bon la lu jaramat la laajoon nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, laajoon na saaba yi ne ko ndax xam ngeen lan mooy lan mooy jëw ñu ne ko yàlla akub yonentam de ñoo ko xam mu ne xanaa mooy nga wax ci sa mbokk loo xam ne bëggu ko te nekku fa mooy nga wax ci sa mbokkum jullit loo xam ne bëggoo mu déggu ko ak donte la ngay wax dafa nekk ci moom loolu mooy jëw amma su fekkee ne la ngay wax nekkul ci moom nag loolu moom leneen la loolu aw dóor la waaye jëw dëgg dëgg dëgg mooy li ngay wax ci nit ki nga gis ne nit ki dafa gàtt ngay wax nit a gàttaay bi te bëggu mu dégg ko walla mu njool walla mu rëy walla mu tuuti nga koy tudd te bëggu mu dégg ko ne loolu dégg dégg mooy jëw waaye su fekkee ne dafa gàtt nga naan diw diw ak diw ak njoolaayam bi ah, nee na loolu sos la waaye jëw dégg dégg nag mooy ngay wax li nekk ci nit ki te bëggu mu dégg ko loolu mooy dégg dégg jëw ah, jëw nag nekk lu jara jara moytu xam ne des na ci gën a yaatal ci jataay yi di ñëw insha allahu taala al karim ah, bu soobee suñu borom waaye dañuy taxawlu foofu rek ba beneen jotaay insha allah ñaan suñu borom defal ak digg ak topp euh, loolu daal bokk na ci lenn ci tomb yi nga xam ne Serigne Touba dénkoon na ko soxna Penda Diop ne ko laa tansuri ma dumti xayatan ila xayri lasi taxliluhu xaddin jala del wax ko ne ko wàccani bil xibata wa takabura wa asbiti sukuta wa tasabura yooyu noo ngi ci ci jëw jëw lu bana a la ci ab jullit mu da ko def mbokkum jullitam kon xam naa foofu la ñuy taxawlu insha allah taala di ngeen suñu defandu ak dig ak topp ci Seex al Xadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ففي مساياه لا يرتاب طيار وهو المتم ذوي الإسلام يوم عدا ميم بي كان للإسلام إظهار والله فرق بالفاروق سيدنا الحق من باطل أبدته فجار